bi jaroog yéen chaque jour nee naa leen contentement bi indi leen li gën a fës ci xibaaru làmb la ma toog sama mag nag sama xarit Mbaye Babacar su ma fayee ñu di ñëw jukkil leen li gën a fës Mbaye maa ngi lay nuyu. fay di kontaan ci yow di kontaan ci suñu xarit yépp yi nga bii jamono bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di gën a féddali kóllëre bu baax a baax suñu diggante ak ñoom ñoom ñi nga xamante ne bii Leewtoo TV rek lañ jàppanteel ngir informé wu ci wàllu làmb di sant suñu partenaire rek di Iwi Jador indi boobu dunu j'adore spaghetti j'adore macaroni j'adore vermicelle j'adore mu ne déet <laughs> eh, mu dagg ataaya j'adore kenn du. ñu ne déet mu dagg daal j'adore daal lëmbee réew mi fi mu toll nii kon daal dem leen wuti j'adore wante suñu partenaires yi da cee bokk Kayar di ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar ni ma leen koy waxee saa su ne xam ngeen ne ndox mi set na sell na neex na ba pare prix yi leen koy jaayee nag abordable ku ci nekk sa poche attan na ko. mën nañu wax ne au ndimbal jaboot la wax dëgg yàlla daw leen ngeen wuti ko ndax mooy ndox mi nga xamante ne bii moo dàq ci ndox yi te ñépp àndandoo nangu ne au Kayar mooy ndox bi ñuy aar te noonu laay def dane saraax ci journal suñu làmb la mu xëyee ci xëtam mu njëkk nag Balla Gaye numéro 2 B52 de Mbour mhm. Pakala ak Forza du a juillet vers deux règlements de compte explosif mhm. maanaam jour boobaa 1-1 lay nekk wala 2-0 mhm. te noonu nag Balla adversaire ma di bombardier ne ko bu su bombardier bëree bu xeexee ma duma ko su bëree ma daal di koy daan nee na ko su bëree ma duma ko su xeexee ma daal di koy daan waaye bombardier ku ne xam na ne mbër la ma nga xamante ne bii du wann baat nee na ko wax dëgg yàlla li ma préparé yow Balla Gaye àttanoo ko démb nag ñu gis la nga xamante ne bii moom mooy euh, face à face bu tàng jër. Mm-hmm. li ñuy xaar ci face à face yëpp ñu gis ko ci ñaari mbër yi ku ci nekk yëngal ku ci nekk jaay li nga xamante ne bii moom mooy événement yi wante Bombardier nee na ko Balla Gaye yow euh, incha allah man ñëpp nangu nañu ne man maay favori ci komba bi te su ma jàkkaarloo ko yow. li ma préparé génnuma réew mi de dew ma fenn waaye li ma préparé foofu ma la jaarale woon bu njëkk foofu laa lay jaarale waat dinaa la duma dinaa la daan wante Balla gay am na lu mu ko ci tegal nee na ko dama laa xiif man. xiif dafa yàqam di daal dama <laughs> ay BG2 te noonu nag vainqueur de Modja hier Thiat rend hommage à Boy Bambara mu nekk lu rafet a rafet rafet macha allah di ko ñaanal ndam li jik ko Mbaye Babacar. mu mel nii la mu waxoon loolu la def avant combat bi daf la woon euh, bi dama ko jël. ngir am ci ndam delloo ci njukkal ki nga xamante ne bii mooy sama papa bi sa suñ ci man rëkk te daawuma rëkk kooku mooy eh, suñu papa booy bambara ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko mu génnoon àdduna li nga xamante ne bii mooy fan yi ñu jàll rek eh, eh, le 22 janvier passé la génnoon àdduna ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko caat nag la mu waxoon def na ko gannaaw ba mu bëree ki nga xamante ne bii mooy mojja juróom benn minute nekkul combat bu metti nekkoon combat bu tàng suñu borom may na ko ndam mu daan ki nga xamante ne bii mooy jël mo jël bu amul benn wanante nee nag ndam li yëpp da koo jël delloo ci njukkal ki nga xamante ne bii kenn la woon ci moom doon ko jàppale bu baax a baax ci wàllu làmb muy suñu papa ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Boy Bambara. mu ngi noonu nag moom mooy borom cinquante cinquante waaw tolloo tolloo. waaw 50 tolloo tolloo. loolu la génnee loolu la génnee combat sipit double disqualification ki nga xamante ne ni mooy doomu Jalaaw ak Boy Niang numéro 2 la face du week-end maanaam ñoom ñaar bëreewuñu xam fa nekk yoon di layam layam yi. lambar lambar lambar lambar. <laughs> mu mel ni ñoom dañoo dañoo bett ñi nga xamante ne bii ñooy amateurs yi ñëwoon ca làmb jekkaroo ndax euh, euh, loolu bëriwul liñ koy gis ñaari mbër ñu boole leen disqualifié ndoo leen ñoom ñaar bëriwul li muy am parfois benn mbër la ñuy disqualifié jox benn mbër victoire mais ñoom ñaar. barki dem ku ci nekk danga am cinq avertissement mu nekk la nga xamante ni bii nag amateur yi mer nañ ci bay futt parce que li ñu doon xaar ci boobu boobule combat mu doon dox ci gi nga xamante moom mooy doomu jalaaw ak Boy Niang numéro 2 gisuñu ko kon daal li ñu mën a jàpp mooy amateur yi déception totale la ñu am ci boobu boobule combat mu doon dox ci doomu jalaaw ak Boy ka amul déception nag mooy nga xam ne mooy Doudou Sané ak Mamady Ndiaye Adrien du week-end Doudou Sané Mamady vainqueur maanaam ñëpp jël raw gàddu ga ñoom ñaar ñëpp ay vainqueur la ñu fekk nga ne bii moo fa daan bu kii bu ndàngaan ñu ne déet ki nga xamante ne bii moom mooy Mamady Ndiaye ci final bi mu daan caaka fay loolu nag ma nga amee woon fële ci Adrien Senghor association euh, Europe Jowat di association Joola ba nga xamante ne bii dañu lëkkaloo ak seen doomu ndeyu séeréer yi ñoom ñoo tëggoon boobu la gala ci adresse am. mu ngi noonu nag ba léegi gala de Boubacar Niang à Iba Mar Diop hier kii di Boy Diop nag moo daan xeeru ngor ci 2 minutes 27 secondes. combat bu neex combat bu gaaw Boubacar Niang boroom Ama Evans bi moo nekkoon deuxième journée am gannaaw. ba mu tëggee première journée euh, doon amal deuxième journée démb ñu gis ay yu neex combat préliminaire yi neex na grand combat bi neex na trop ci diggante ki nga xamante ne bii moom mooy booy Diop mi nga xam ne dafa toog ci juróomi victoire. Mm. démb nag dafa dëggal loolu. juróomi victoire yooyu mu toog bi mu ñëwee dafa confirmer ne dynamique bi ma nekkoon du ma ko wàcc daal di daan ki nga xamante ne bii moom mooy euh, xeeru ngor jël bu amul benn werante ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk andi woon supporters yu bëri wante ku ci nekk tamit àndaale woon li nga xamante ne bii mooy confiance total suñu làmb nag ku ci nekk. andi li nga xamante ne bii moom mooy jom fulla ak fayda waaye ni ñu koy waxee làmb ñaari ndam ñooy dugg wante benn benn mooy génn te noonu nag journée nga xam ne mooy Serigne Modou Niang nag moo fa jël raw gaadu ga ci kaw Max Crazy nga lan lu jëf la amee woon Max Crazy la daan Serigne Modou Niang di promoteur bi nga xamante ne bii moom mooy promouvoir jeune talent yi nekk ci làmb ji mën nañ wax ne mbër yu bëri yu fi fëll moo du Niang moo leen tëgg moo leen wone ba ñu xam leen ci dynamique boobu la nekk ba léegi di tëgg ay làmb nag ay làmb ya nga xamante ne bii ay jeune espoir lay tëgg moom Serigne Modou Niang ca Ngalandou Diouf la tëggoon nag ca Réfis tëggoon fa combat ba nga xamante ne bii macha allah tamit neex na comme ni mu koy defee rek ay xele la fa boole woon muy ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Serigne Modou Niang moo boole woon ki nga xam moom Max Crazy ak nga xamante ne moom mooy Albouri nekkoon combat bu neex macha allah amateur yi fa nekkoon yëpp a te loolu nag deuxième journée nag ki nga xam ne mooy Baba Diaw Iba Mar la amee woon samedi caatu yaraax nag moo fa daan nga xam ne mooy Zal Bawal ci deux secondes. bu gaaw vite fait deux secondes. bien fait mën nañu wax ne caatu caatu yaraax ay combaam yi ci gën a yàgg du passé une minute. dé barki démb nag samedi bi mu ñëwee dafa dëggalaat loolu. mën nañ wax ne ci 2 secondes wala 3 secondes ci la jëli ki nga xamante ne moom mooy Zal Baol daan ko mais li ci gën a doy waar damaa toog ak Mass SBT Média mënuma ñoom ñaar seen combat du passé une minute. parce que ku ci nekk bu dëggalee li nga wax combat bu gaaw la ñuy gis ñu mu demee noonu euh, Mass tamit nekk mbë euh, nekk ka nga xamante ne bii day topp xale yi. parce que dama koy faral di wax xale yi su fekkente ni bii da nga leen ne topp bi ñu doonee xale bu ñu màggandoog yow dañ lay yóbbaale. mi ngi noonu mu koy ñu koy njukkal bu baax a baax ci liggéey bu rafet boobu nga xamante ne bi suñu naataango boobu di maas borom SBT Média mi ngi koy def euh, di ko jaajafal bu baax a baax wante keroog ñu gis combat bu gaaw combat ba nga xamante ne bi arbitre dafa soufflé rek ki nga xam ne moom mooy xeeru ngoro yootu saal zal bawol plaque ko daan ko jël bu gaaw ba nga xamante ne mën nañ wax ne saison bi ren buñ doon calculer combat bi gën a gaaw ci saison bi. est que mos naa xaar dégg combat boobu noonu du ci génn. gaaw na CNG la ak CRG samedi problème yooyu du simple nag ñu ngay débattre te Fatick Fatick Fatick la amee woon ki nga xamante ne bii moom mooy manque de jiite li nga xamante ne bii moom mooy lutte simple ci euh, CNG moom moo daje woon ak CRG bu Fatick wante àndoon na ak Khalifa Sow ak yeneen membre CNG foofu ca ndaje ma lañ fa waxtaane nag bokk na ci problème yi xamante ne bii moom mooy am foofu ca Fatick ànd euh, nañ ci ay proposition pour jéem a saafara loolu nga xamante ne bii moom mooy am foofa ca Fatick premier point bi njëkk a souligné mooy nemmeeku na ne Fatick gala de lutte traditionnel ya fay am day faral di guddee parfois 3 heures de matin lay jeex wala 5 heures de matin loolu euh, nañ ci ay proposition ba léegi tamit li nga xamante ne bii mooy plus de 120 kilos maanaam téeméeri kilo ak ñaar fukk ñi nga xamante ne bii nee na ñooñu du ñu bëree drapeau du chef de l'état waxtaan nañ waxtaan nañu fa jéem a xool naka la ñuy def ba plus de 120 kilos yi ñu intégré leen ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, ci drapeau du chef de l'état ba léegi tamit waxtaan nañ ci li nga xamante ne bii mooy formation arbitre yi foofu ñu gën a renforcer seen capacité ba pare tamit techniciens yi nekk foofu tamit war nañ leen a former ngir gën a yokk li nga xamante ne bii moom mooy seen xam-xam waaye ba léegi waxtaan naat nañu ci bëre simple bi jéem a xool euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy bëre ci bëre simple bi naka la ñuy def ba euh, catégoriser leen maanaam ku ci nekk poids ba nga nekk nga bëri ak sa naataango. comme par exemple Ndeye Mbacke bu nekkee 66 kilos 66 kilos lay bëreel comme ni muy amee ci drapeau du chef de l'État wante Ndeye Mbacke du nekk 66 66 kilos di ak Mansour mi nga xamante ne bii 90 kilos la wala 80 kilos wala wala wala wala non wala ayda yee yow musuma nga bëgg noonu la jeexale jeexalee nag journal suñu lamb lañ cee jeexalee nag mooy lii di Iba Kane suñu naataangoo boobu mhm. daa ñàkk waajuram bu jigéen bay Mbaye Babacar loolu démb la am ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu naataango boobu di Iba Kane nga xam ne dañuy topp nag ci revue de l'arène mhm. waxtu wu jot di ñu ci encouragé wante tamit di ñu ci di ñu di ñu ci andi li nga xamante ne bii moom mooy xalaatam mhm. ñu koy ñu ngi koy jaale bu baax a baax moom Iba Kane suñu borom euh, yërëm waajuram mu jigéen mu génn àdduna te yóbbu ko ci arjana mi gën a kawe barki Seydina Mohamed ci suñu kàddu waa Leewtoo production ak waa Leewtoo TV yépp ñu ngi koy jaale mu ngi noonu nag Ibra noonu la ñuy defee dem journal Les Arènes Les Arènes nag kam kam ñam xëyee limite nag révolution du CNG ginnaaw mm-hmm. bañ càmbaree càmbaraat yi mm-hmm. am ci arène nationale ñaawtee fii mm-hmm. guddee lamb yi ñoo xew war ba tax na nag la ñuy exiger mooy combat yi di commencer à 16h jeex 19h waaw loolu su amee mën nañ ne dina arranger ñi nga xamante ne bii ñooy amateur yi ndax ku ne xam na ne làmb am na heure bu muy jeex amateur yi seen fiti ci seen digg bopp yi lay nekk parce que en général làmb bu jeexee day bari ay agression day bëri li nga xamante ne bii moom mooy ay xeex ci buntu beeg yooyu mais bu teelee jeex ku ci nekk di am possibilité teel a ñibbi gannaaw ba CNG euh, waxtaanee seen biir ñu ne léegi nag dañu bëgg làmb yi di teel a commencé wante di teel a terminé bëgg nañ au plus tard 16h wala 17h ñu commencé bu ñu commencé 16h au plus tard 10 19h tàkk lamb yëpp jeex seetlu nan ñaari lamb yi dem euh, Iba Mar Diop ci weekend bi yëpp 19h 19h15. jeex na ñëpp teel a ñibbi loolu nag ñu ne bu amee euh, durée combat yi dina toll ci ñeenti waxtu ak ñeent fukki simili ak benn maanaam 4h41 minutes ci la combat yi yëpp di am. daal di jeex wante ki nga xamante ne bii moom moo def jàngat bi la ci arène les arènes moom mooy euh, Abou Ndour nee na nag loolu pour mu am il faut ñu respecter li nga xamante ne bii mooy heure bi ñuy commencer wante tamit respecter heure bi nga xamante ne bii moom dañuy terminer nee na sinon loolu su amul dinañ wàññi li nga xamante ne bii moom mooy durée combat yi parce que xam nañ ne combat préliminaire yi mu ngi durée li nga xamante ne bii moom mooy vingt cinq minutes dañuy bëre dix minutes. mi-temps bëre 10 minutes fin su fekkente ne bii dañu tolloo ay ay avertissement ñu dafa leen prolongation cinq minutes su fekkee grand combat bi nag ñu ngi bëri li nga xamante ne bii moom mooy 40 euh, minutes 20 minutes mi-temps 20 minutes fin su fekkente ne bii am na prolongation ñu dafa leen prolongation nee na su fekkente ne bii combat yi 10 10 yi muy doon la ba léegi. Euh, dinañ wàññi combat yi wala ñu wàññi li nga xamante ni bii moom mooy diire combat yi. Abou Ndour moo defat moo def jàngat bu am solo boobu ci les arènes. jàngat bu am solo la moom Abou Ndour di ko jaajëfal bu baax waaye di jaajëfal Mbaye Babacar bu baax a baax loolu moo nekkoon di gën a fës ci xibaaru làmb waaye nag tey balaa may tàggatoo ki waral mbaboor bi daa xewle di boroom kër gi di Pape Thialis Faye suñu DG boobu nga xam ne buuxuñu benn yoon sànniwuñu benn yoon uuf ñu comme njabootam mm-hmm. bëggal boppam mel comme suñu dafa mel comme suñu papa dañ koo ah. sonal laxal ko ah. te xale bu ndaw la jeune am ambition di liggéey ci wàllum làmb di ko ñaanal jàmm ak salaam sutura àdduna ak àllaaxira ak gudd fan soo guddee fan Pape Thialis Faye lépp di nga ko am sa xol dafa rafet macha allah mm-hmm. nit nag du ñàkk sikk mm-hmm. waaye xol bu rafet rafet la am mm-hmm. doomu ñee nag kenn du ko ñaanal rëy chéri Amina dañ koy ñaanal gudd fan dundal dundal dundal ba ba sa sedd guy guy guy li nga bëgg sa àdduna lépp nga am ko turu Leewtoo Leewtoo production Leewtoo TV sama kaddu kaddu Mbaye Babacar ñoo la koy souhaité Mbaye Babacar ñoo la kaddu gi yaa ma daa ko wax. kooku mooy séeri Amina ak Yaane yàlla na jàmmam yàgg xam nga olof Njaay daf ne tegle bu jubee te daanuwul ba nekk ci suuf moo jub te dëgër macha allah lépp nag moom la moom mooy baas bi macha allah mu nekk euh, ka nga xamante ne bii dañu naan zero faute yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu koy souhaité un joyeux anniversaire. longue vie santé prospérité réussite total nañ koy wax lépp la nga xamante ni bii objectif am na yàlla na ko ko yàlla defar le futur maire de la commune de Mermoz ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam anniversaire bi feetee ko at yu baree bari dem booy envoyé suñu borom rappel moi naan ko xanaa danga maa fàtte. danga maa fàtte jazima mu ngi <laughs> noonu nag merci beaucoup Mbaye ma jaajëfal ko bu baax noonu laay de sant sama caméra woman bi faa ma bég ci moom. Mansour Fall Magne Pro sama photographie damay kontaan yow bu baax a baax jox leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.